rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi watanala bismillahi rahmaani rahim mbokk yi tey mooy sunu ñaar fukkeelu jotaay ak juróom benn muy numéro vingt-six ci sunu téere bii di naxju qadaa'il xaaj tey sëriñ bi mi ngi tàmbaleeg ñun ci nooy wege sab sëriñ sab sëriñ nag ñaar la benn mu nekk sëriñ bi lay jàngal sab sëriñ lañ koy jàppe wala buy sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ bi yare mooy sëriñ bi ngay jokk sëriñ bi ngay jaayanteel Euh, loolu nag mooy li mujj ci téere bi daanaka fii ba téere bi jeex sëriñ bi loolu rek la ci ciy jàngal yan teggin mooy dox diggante taalibe bi ak sëriñ bi summa ashaara topp mu junju ila kayfiyati taaddubi jëm ci melow tegginu melow yaru maa cheikhi ànd ak sëriñ ba almurabbi bay aji yare wal muallimi ak sëriñ bay aji jàngale wal axi ak mbokk xaqan mbir mu muy dëgg-dëggi mbokk wa saaxibi ak mbir mu muy dëgg-dëggi àndandoo mu wax bay dii nee na nag ginnaaw loolu daa bëgg soppi wax ji jëmale ko ci beneen anam moo tax mu ne day junju ginnaaw loolu mi ngi junju nag jëm ci dog boo xam ne lam cay jàngale moo di naka ngay sàmmoonteeg ay teggin ànd ak sa sayxul bi mooy sëriñ bi nga xam ne dalay yar génne ci yow jikko yi nga xam ne moo la tee maneek sa boroom ak sëriñ bi nga xam ne moom dafa lay jàngal ba nga xam sa diine xam say farata ak it teggin yi nga war a sàmmonteeg sa digganteeg sa mbokk dëgg-dëgg ak sa euh, wala bokk da ciy jàngale maanaam dana bokk ci dog bii di waaj a ñëw dana la ci jàngal kan mooy mbokk dëgg kan mooy àndandoo dëgg-dëgg lan moo di mbokk dëgg-dëgg ak lan moo di àndandoo dëgg-dëgg bi nga xam ne moom la yàlla bëgg moom la yonent bi bëgg moom la lislaam sant jullit bi buy wut mbokk mu wut kooka buy wut ab xaritit mu wut kooka moo tax mu ne wa gaayata tawqiiri waqir cheyqaka wajacalhu sayidan lahu hab xayraka masha waqir ngay jàng wa waqir na nga nanga na nga xormaal gaayata tawxiiri dayob wekk mooy dayob wormaal cheyxaka sab sëriñ wajalhu na nga ko def sayidan mu di ab sang lëxoo boo xam ne lëxoo ñeel ko xëpp na ko jox na ko may xayraka saw yiw mooy na ko jox rek waqdi na faj alxawaaija aajo ya lëxoo ñeel sëriñ bi maa ista li fekk yaa ngi dund li fekk dund nga mooy li fekk yaa ngi dund bil bazli ci joxe wala xidmati ak liggéeyal mastataata sa kem kàttan mu ne sëb sëriñ loo mën ci wegal rek nang ko xeeb loo ko weg-weg nang ko xeeb nang ko xeeb nee na dee ko xormaal te dee ko liggéeyal dee ko wormaal dee ko liggéeyal def ko muy sab sang melal ne yow doo dara lu dul as ndonga lu dul ab jaam rek bu nekk ci kanamu sangam dee ko jox saw yiw lu baax loo xam nga gis na lii de baax na jàppal ne moom moo ci gën a yey dee ko defal loola na fekk nag nga tànn ko ba mat dëgg-dëgg sëriñ ba noppi bañ a nekk koo xam ne da jëfandikoo rek te du la jariñ dara mboolem aajo ju mu ju mu am soo ko mënee faj nanga dem faj ko te def ko ngir jëmee yàlla li fekk yaa ngi koy man sa kem kàttan daal deel dimbale sab sëriñ de ko jox addiya dee ko liggéeyal mu ne yaani dana jublu ne annahu naka moom yaamuruka dana la digal bi an tuwaqira ci ngay wekk cheikh ak sab sëriñ wa an taqdiya ak ngay faj xawaijahu aajoom ya mastataata sa kem kàttan nee na bayit yooyu dala cee bëgg a wax rek ñaari bayit yooyu jàll ni ngay wormaale sab sëriñ ak di ko liggéeyal ak di ko fajal ay aajoom waji tani ban teet mooy na nga wattandiku boxkan ree wa mas xan ak muurant mooy fo wa soxab ak coow amaama cheyxika ci kanamub sa sëriñ ida rumta ndem sàkku nga al adaba teggin ya wala takun bul nekk saltifaat di boroomu geesu ilal jihaati ngay jël ilal jihaati jëm ca wàll ya wasaa taxarrukin tey boroom ak yëngatu la day fa moom wala tukathir bul baril alkalaama wax ja indahu fa moom balli am kay mooy kun na nga nekk samuutan di am noppi waa kon mooy saxoo noppi li taxoo sa ngir nga làq rus doxoo njubam ga nee na na nga wattandiku yii nekk sa kanamu sëriñ wala sa kilifa ngay ree di xaqtaay ba dee ba am eh, sëñ Tuubaa waxoon na ko xaddaa suma bul ree lu dut boo boo ba mënoo ñàkk ree nga daal sëgg muñ tuuti ci worma waaye bul ree ca kaw wattandikul nekk fa kanamam di coow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ña ko doon def ci kanamam gis nga la leen alquran wax laa tarfa'u aswaatakum ko sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd ndax an an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun bu ngeen toogee ci kanamu sang bu tedd bi yëkkati seen baat ca kaw di waxe nu leen neex di coow nee na xam leen ne mboolem lu ngeen defoon yàlla sippi na ko yàlla yàq na lépp te du ngeen ko yëg da ngeen defee ne maa ngi fa fekk nekku fa kon coow sa kanamu sëriñ nee na lépp koo xam day sàkku teggin na wattandiku ñett yooyu ree ak am fo ak coow ci kanamu sa kanamu sëriñ wala takun la day saltifaati mu nee na boo toogee sa kanamu sa sëriñ it bul juut juuti di xool fee di xool fee di xool fee déedéet fu ne nga yunni yunni fa déedéet wàccal sab gis rek bul nekk tamit di juut juuti lii lépp waxoon na ko al idtiraab mooy baj baji loolu bu ko def bul geestu geestu bu bari bul yëngatu yëngatu bu bari di toog di wëlbatiku di toogaat déedéet toogal ba say tànk toqi nga doog a changé mu ne wala tusaaxibhu bul àndaaleeg moom wala boog nee na wala tukasir al kalaama indahu bal kun samuudan li sa rasu naka noonu boo toogee sa kanam sëriñ bul bari ay wax lii waxoon na ko kun saakitan ata yu xaawilal kalaam min ka fa xaatibu isan xadaral malaam loolu weesoon nañ ko kon bul toog di bari wax lool di nettali lu ne nga wax ko déedéet da ngay noppi rek boo amee soxla laaj ko ko sëriñ bi naka toolee nangam mu doog mu tontu la ca nga yem foofa wala moom ci boppam mu soxla laa laaj a ah, ana sa doom jooje wala ana nangam nga tontu ko xadaral malaam kem kem lim sàkku ci yow rek bu ca yokk dara nee na wala bul àndaaleeg moom bilaa tabjilin tu lu ci ludut màggal fii zamanin ci jamono ka dë bi haatal jiil niki aaday gileeg maas aaday jamono ji laa tajcalanhu bul ko def misla misla saaxibin mu mel ne kem àndaale xadara bopp teew na rek illa lasi ndara la nga xam ne laa budda mënta ñàkk minhu ci moom min dararin ci lor wastami na ngay déglu allasi la nga xam ne dallaka tegtal na la alayhi ca loolee boo noppee nag mubaadiran ngay aji gaawe ndigal la lam la tegtal ngay aji gaawe ci jëf ko walaw abathu ak doonte bañ na ko nafsu ko sa bakkan wandur na nga xool ilaa ma jëm ca la nga xam ne xad na xaaka tere na la anhu walif loole wa firra ta ngay daw minhu ci moom wajj tanib ta ngay teet nga wattandi ko xawaaka sa bànneex nee na heure boo àndeeg sa kilifa googu bul dañ mukk di ko màggal ci jamono ju mën a doon nee na bul def li waa jamono def dafa ne jamono ji mi way téere bi loolu moo xewoon mooy jël sëb sëriñ def ko ni morom nee na waa jamono ji ma nekk jamono ji may taalifee man naa amit mu nekk ci jamono jii may waxee nii sax man ñi nga xam dañuy ñàkk xormaal seen sëriñ di ko neen loolu bul ko def bu ko jàppee benn waay bu ànd ak yow déedéet lépp loo xam ne lu mënta ñàkk la nga xam ne lii ngant la ñu xam ne lii ngant moo ko andi lépp lum la digal tegtal la loolee demal nga gaaw na ko dégg ba noppi na ko jëfe te jëfe gi na gaaw Sëñ Muntaxa ne bàyyi leen mees bàyyi leen football bàyyi leen nangam nañ ko gaaw jëfe ci saasa waaye nag di taawil sëñ bi xam naa nangam daa am ko def nii nangam déedéet da ngay gaaw defe ko da ngay gaaw def ko ci saasa yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi aaye ji sàngara sàngara kon xam na daganoon na ñu koy jëfandikoo suñu borom araamal ko ci ay étape wa min thamarati naxili wal a'nab tattaxisuuna minhu sakaran dem na ba mel na lu ko xaw a tagg ne ah bokk na ci xéewale yàlla yi day ngeen jël meññetum suñ borom mi xeetu raisin yi ak yu mel noona ngeen mën cee jël sàngara su ngeen di naan di ci bànneexoo bam yàgg mu ñëw daal koy teere teere bu xaw a yem ne ko ñi ngi lay laaj ci sàngara sàngara ñi ngi lay laaj am mbiram ne leen sàngara day am na ay njariñ yu ci nekk am na lor yu ci nekk waaye lor ya nag moo ëpp njariñ ya wa ak akbaru min nafihima sàngara am na tuuti njariñ lu ci nekk de mooy gars yi ñu ngi ciy commerce ñu nekk Makka ak ñu nekk Madina ñu ngi ci commerce ci nekk di ci gañe ay millions di ci am xaalis ak it léeg-léeg mu xaw koo jariñ as tuut am na ñu ne dana léeg mu faj biir wala nangam nangam moom daal bari na ay wax mu ne am na tuuti njariñ bu ci nekk fiihi manaafihu linnaas am na tuuti njariñ lu ci nit ñay am waxut sax waxut sax njariñ luy jëm ci yàlla déedéet nit ñi am na seen njariñ loo xam ne ñi ngi ko ci jariñoo ci am ay koppar waaye am na bàkkaar bu rëy bu ca nekk ay lor lor ja moo ëpp njariñ li saxaaba yu bari daan wax dëgg yàlla de loo xam ne lor ja moo ëpp njariñ la man bàyyi naa am ñu na wax dëgg yàlla comme njariñ ci rek nañ continuer beneen aaya ñëwaat laa taqrabu solaata wa antum sukaara bu ci kenn di sàngara bu julli di waaja di jot bu ci kenn naan sàngara fekk julli mi ngi waaj a jot am ñu ne ah, lii de leer na julli ni mu lépp lu ñu ko nar a yàqal loola day wone ne baaxut ñu ne bàyyi nañ am ñu ne ah, ñun daal nañ kon nañ koy naan ci guddi gi rek njóobeen yi wala bu ñu jullee suba ba noppi suba tisbaar sore na <laughs> yàlla yokk leen wér ah beneen aaya ñëw nag daal di xadd kaaba gi nag dàq lépp nag innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijzun muy benn min amal sheytaani ñaar fajtanibuuhu ñett innama yuridu sheytaanu laalakum tufloon xam naa ko eh, li ma ñor rek laa indi innama yuridu sheytaan ay yuqia baynakum al adaawa ñeent wal bagda juróom fil xamri wal maysir wa yasuddakum an dikrillah juróom benn wa ani salaati juróom ñaar fa hal antum muntahun suñu borom tudd na foofu juróom ñaari mbir yoo xam ne benn bu ci nekk jar na bàyyi sàngara kon xaraama lu araama gu dog ba noppi nag neex fa hal antum muntahun yéen ñi ci desoon naan man bàyyi bàyyeeguma bàyyeeguma xanaa leegi war naa leer sàngara daal di xaraam mu daal di xaraam keroog bi li ma ñoroon ci wax ji li tax ma nettali li lépp mais keroog bi aaya ji wàcce dañoo xëy suba mbeddi dëkk bi Madina mbedd yi fees dell ak sàngara suñu tuur ci mbedd yi ñëpp génne seeni barigo dem tuur lu ma ñor ci wax ji mooy mubaadiran mooy da ngay jëfe ndigal da nga koy gaaw xam mënoon nañoo wax ne yonent bi dimbali ñu rek ñu dëgg yàlla jaay li ñu dese ci suñu eh, stock yi ci des bu jeexee ñu bàyyi déedéet ca saasa ca saasa am na ku mu fekkoon mu jot a importé lu bari ba mu ñëwee ñu ne ko ah yow day def nga musiba ndax yonent bi salaahu salaam yàlla wàcc na ci moom aaya sàngara xaraam na léegi mu dem ci yonent bi ne man de jëndoon naa ko ba noppi te sama xaalis la léegi kon téema koo dem jox yéefari ñoom mën nañu yonent bi ne ko déedéet sàngara moom kenn du ci dimbali kenn tuur rek tuur rek mu daal di jëfandikoo loola ngir gëm yàlla kon ndigal da koy gaaw jëfe bu rootee rek nga gaaw jëfe ko Sëñ Tuubaa bi muy jàngal murid saadix sifaatu saadixil muridi bi ixtixaar arbaatun nadamtuha xawfa ixtiraar asidqu fi mahabbati cheikhi abad summa imtisaalu amrihi xaysu warat da ngay topp ndigali bu ndigali daanoo rek da koy gaaw jëfe kon nee na ngay na ngay déglu lim lay wax te ngay gaaw di ko jëfe walaw abathu nafsuka ak doonte dafa diis ci yaa ngi yor sa magasin bi def ci ay mees mu bari suñ muntaxaa tere na mees jëlal lépp nga gas ba ba mu xóot nga kos almet teg ci nga xool ba xam loola yàllay defal waaye boo nee ah wax dëgg yàlla man jëndoon naa ko ba noppi na déedéet ndigal léeg daru dëppoog bakkan kon noonu loolu mooy topp ndigal demal sa kër nga ne jigéen ñi bu fi kenn meesooti sëñ bi da koy tere te laata sëñ bi di ko tere sax alxuraan tere woon na ko yonante bi tere woon na ko amul xaar sama gerefaas bi ma jëndoon bërki dee mu jënd ko deux cent nga ne ko lakk ko lakk ko te def ko ngir jëmme yàlla lépp loo nangoo bàyyi ngir yàlla yàlla wuutal la loola lépp loo nangoo bàyyi ngir yàlla rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla dana la wuutal dana la wuutal loola askuruhu wa qaadali abdala suñ borom suñ Tuubaa nee na ba mu demee ci géej ga yu bari ci xeet yi bànneex bëgg ba ma ko bàyyee rek sant naa yàlla ndax woo mën na ma lu ko wottee am na ñoo xam ne duñ firee noonu ab daal déedéet lu ko wottee ab daal mooy lu ko wotti loola wallahu aalam mu ne wantur ilaa ma anhu xad naha xad nahaaka na nga xool lim lay tere moom sëriñ bi nga di ko daw wa minhu firra nga di ko daw te nga wattandiku di topp sa bànneex ni ko nit ñi di defe rek lépp lu diine wax bu fekkee daal di sa bakkan nga ne ah, man daal dégg naa ci keneen borom beneen borom xam-xam nee na nangam fekk yow jubluwoo topp borom xam-xam booba de déedéet da ngaa bëgg topp sa bakkan rek moo tax nga xool fu mu gën a yombee. dana jublu ni annahu naka moom yanhaaka dana la tere wa kasratil Euh, mazhi ak bari murant muy fo wax saxa bi ak coow bi xadaratihi ca jotaayam ba moom sëriñ ba ca teewaayam ba wa kasaratil iltifaati ak bari ab geestu maahu ànd ak moom ca jotaay ba wa an an tajcalahu ak ci nga koy def moom sëriñ bi ka saahibi ni ki morom illaa ma ndare la nga xam ne laa budda mënta ñàkk minhu ci moom min ad daruraati ci xeeti lor yi ni nga tooga moom ci kaw ci lu mënta ñàkk wa an tastamia ak ngay déglu jamia ma mboolem la nga xam ne yaamuruka dana la digal bihi ca loola wa tubaadira hoo ta nga koy gaawe wa in karihathu ak donte sib na ko nafsu ko sa bakkan wa an tantura ak ngay xool ilaa ma jëm ca la nga xam ne yan haaka dana la tere anhu walis loolee wa taxtarisa ta ngay wattandiku minhu ca loolee wala taqrubhu bul ko jege abadan faw mukk nee na bayit yooyu weesu li mu la doon digal rek mooy nga wattandiku di ree ak di fox ak di coow ci mu sëb sëriñ ak ak nga di ko jàppe ni sa moroom lu dem ba loo xam ne lii mënta ñàkk loola jéggal nañ la ko ngir ngànt na nga koy déglu lam lay digal nga gaaw di ko def ak doonte sa bakkan da ko da koo sib doonte loolu neexut dëppoo ak sa bànneex lépp loo xam ne nag dala koo tere na nga bàyyi loola te bul ko ti mukk te fekk na sax sëriñ bi eh, bu dee sëriñ bu mat sëriñ la lim lay digal ak lim lay tere lépp day jottale rek fekkoon na yàlla ak yonent bi tere la ko wala boog mu am ci benn système bu mu jaare boo xam ne xam na ne lii baaxul ci yow ne kii taalibe bi ab njóobeen la daa bëgg daa bëgg lekk lool san sëriñ bi ne ko wax dëgg yàlla semaine bu jot na nga tànn ñaari fan di ko woor mën a dañ ci moom ngir xam na ne lekk gu bari da koy yàqal nàngam wala xam na ne njóobeen la dafa rëy lool rëy jàpp boppam dara sëriñ bi ne ko suba gu eh, maanaam heure dix heures bu jotatee ba nit ñi nekk ci marché ba demal ci marché ba nga yalwaan <laughs> fekk sëriñ bi soxlawut yalwaan bi lam ca jublu mooy mu dem ak yére ya mu sol dem ci biir nit ñi taxaw tàllal loxo di yàlla ñëpp di ko xool su ko defee dara jaam di wàcc <laughs> ndax xam ne ne loolu moo dox digganteem ak yàlla incha kon lépp lu la digal nga di ko def lu mu la tere nga di ko bàyyi def ko ngir jëmmi yàlla te bul ko bul jegeeti mukk loo xam ne dala koo dala koo tere yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp ak jëfe ndigal wala tazal ilayhi da ihdaai lahu bi ma stataata min ataa'i loolu dugaloon nañ ko ca paas bee weesu sëriñ Tuba nee na wala tazal ba léegi mi nga wax teggi ni dox sa digganteeg sab sëriñ nee la moom lay jeexale téere bi daanaka du ko génnaat ah, lu dut nag lu néew la ci laalaat ci wàllu yeneen teggin rek waaye daanaka daal li des ci téere bi lépp foofu la jëm moo xam nag sa sëriñ bi lay jàngal la wala sa sëriñ bi lay tarbiya mu ne wala tasal bul dañ daa ih daa i di borom di boromuk addiyaal ilayhi jëm ci sëriñ ba lahoo ñeel ko bi mastataata ci sa kem kàttan bi na ata in ci ak may walaw qalilan ak doonte lu néew la limtisaali maa ngir topp la nga xam ne warada rod na ne min annaha ci naka moom hadiya taziidu dana dolli ba man sopp ka nga xam ne yewaddu dana sopp wama lépp loo xam ne ro'aytahu gis nga ko yow la fii amrin ci mbir yamilu muy jeng lëxoo jëm ca loola kun na nga nekk za taxari di boromog nattale li daalika ñel loolee wajtahidan te naga farlu farlu wajtahidan na dana nga farlu baadu ginnaaw ba fii isoalihi ci ak eggaleem fa inna xusnal fiali naka rafetug jëf fi ikmaalihi nekk na ci ak matalam nekk na ci ak mujjëm nee na dalay dénk ba léegi sab sëriñ bokk na ci li nga ko war a defal muy di ko jox hadiya di ko jox addiya sax kem kàttan boo ko xeeb bul wax ne lii ab tàngal la wala lii góoral déedéet bul defee ne addiya mooy lu bari nit mën naa jël ay million ñëw joxe ko nga am ab dërëm joxe ko te fekk yéenay tolloo wala nga ëppale ko sax ndax innamal a'malu binniyaat walaw qalilan nee na ngay joxe addiya ngir li rot ci waxi borom xam-xam yi ñu ne addiya day tax taalibe bi ak sëriñ bi ab day gën a dëgëral buum gi ñu buum gi ñu seq ab sëriñ boo koy jox hadiya day tax buum gi dox diggante sëriñ ak taalibe day tax mu gën a dëgër bal joxe nit nit nit koy jox rek faaw ngeen am alaaqa alaaqa jayida yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali nañ ci moom mu ne tahaadu tahaabu day leen joxante kon da ngeen di bëggante moo tax koy woote ne kii dama koo bëgg léeg-léeg jekk-jekk di jël dara di ko jox ndax dañuy wax ne al mawadda al mawadda gi nga xam ne alxuraan dañoo sant ñu di ko def ahlul bayit dañuy wax mawadda ak mahabba lan moo leen wutale ñaar yëpp bëgg lay firi mawadda mahabba ñu ne mahabba muy bëgg goo xam ne bëgg rek la moom bëgg rek la mawadda nag mooy bëgg goo xam ne faaw day ànd ak dara bëgg goo xam ne li ab sew sew la bëgg goo xam ne faaw day ànd ak dara day ànd ak liggéeyal wala day ànd ak di ko défendre wala day ànd ak yëkkati dara di ko joxe mooy mawadda mhm. moo tax alquran ne wa min maa ngi ci xafsu nag an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda wa rahma gis nga wa jaala baynakum mawadda wa rahma mawadda jigéen ji la mooy féetewoo mawadda sopp gi muy sopp góor gi daa am lu muy àndal day ànd ak ay jëf ay liggéey ay da koy wone ay sentiment ak yépp wa rahma mooy góor gi moom moo am doole dañuy dañuy dañuy bëgg ci moom li ñuy xaar ci moom mooy ne tolérance bu fekkee jigéen ji mi ngi sëyee ni mu war a sëyee lépp loo xam ne gis nañu lii góor dana ko soxla dana bégal góor dana tax góor yëg ne moom mii kat moom mii mooy góor dana ko xormaal dana ko jox war ma lu muy def yégal ko du jël benn décision góor gi dana dana dana dana tabarkàlla ndax góor ñi lu ci ëpp wàllu baat rek la ñuy xëccoo ak kilifteef <laughs> da nga leen koy bàyyee rek dañuy wax ne bokk na ci li tax nga man a ànd ak nit ki da ngay xool li mu bëgg bakk na bëgg nga bàyyee ko ko moom bu dee daa bëgg njiit bàyyee ko njiit la rek léegi ngeen juboo lu ñëw nga ne koy seetal nu ñu def rek bu tax nga ne ko ok yaay kilifa gi jeex na du koy xëccoo mukk waaye boo ko xëccoog moom rek musiba am góor gi nag moo ci moom la ñuy xaar yërmande ak jéllale ak jéggale ak comprendre compréhension ci góor gi lañ koy xaar ñaar yooyu ñooy ànd moo tax mu ne addiya dañuy wax ne day gën a dëgëral diggante sëriñ akub taalibe waaye dama daa sopp rek yem ci noonu ah loola bu yàggee mën na ko bañ a yëg waaye day ànd ak jëf day ànd ak jëf moo tax alxuraan noonu bu kenn demee ci yonante bi sallallahu alayhi di ko siyaare ji lu dul na bokk addiya na ngaa bokk addiya donte nee nañ loolu ginnaaw bi eh, folli nañ ko indi ndax ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday yooye yeneen la waxalaa kulli xaal nee na dee ko jox addiya ndax bu dul dara day day dëgëral relation sëriñ akub taalibe wax dëgg yàlla bu dee doo joxe benn addiya wana bëgg nag naan sëriñ bi xàmmewu ma waaye bu fekkoon ne tey jii wax dëgg yàlla léeg nga indi ñaari saakoy ceeb léeg nga indi am xar léeg-la nangam faaw mu xàmme la <laughs> faaw mu xàmmee la wax dëgg yàlla kon nag mën waxuñu la neen na bari waaye del joxe addiya rek neen tam lépp loo gis sëriñ bi di jeng jëm ca loola mel ni lii bëgg-bëggam la del nattale ñëw di ko jox loola da gis sëriñ bi di fu mu toll di yëy gura rek nga xam ne bëgg na gura léeg nga peese ñaari kilo gura dañu ne ah, dama fee romboon rek ma ne xaaral ma siyaar hmm. nga xam ne sëriñ dañ koo gis lool mu bëgg parfum foo rombe parfum bu neex rek sa xel naa dem ci ma na jën ñëw indil ko dangay ngay nattale li mu bëgg da nattale lim li mu bëgg tayit nee na boo ko xasee ba tàmbali waay waaye góorgóorlu ba na àgg li gën a bon mooy tàmbali dara dagg ko ndax mën naa dem ba def ci xelam def ci yaakaaram bu la gesete ah diw dañoo ne jëmm ne dana ma àndaaleel sama góor mu ñëw joxoo ko dara ndax nee na jëf ju nekk fa ñuy xamee jëf ja baax na wala baaxut ak rafet na ak dayoo jëf ja mooy mujj ga ak mujj dafa am solo lool gis nga imaan ngëm yàlla li muy am am solo nit ki bu gëmee yàlla lu ne mu def ko dem bay waaj a génn ci diina ji lu mu koy yariñ lépp yàqu na nit ki bu fekkoon ne day def la gën a bon dem ba benn fan dese ko benn fan ba mu tuub dugg ci lislaam di rafetal bu faatoo a baax na ak mujj rek mooy mooy mbir mi nasalullah tabaraka wa taala an yaani nasaluhu xusnal xusnal xaatim koy ñaan mujj gu rafet mu ne wakkun na nga nekk euh, muxtariman ngay jël mooy bind bi ci suuf muxtariman di aje warmaal nga doog a demaat ca kaw ne li man ñel képp koo xam ne taxallaqa aju na bihi ci sëriñ bi ahlan moo xam ñooñ la abidan ak ay jaam wa siwaahum ak ñu ñoom sax mutlaqan ak ñu mën a doon laallahu amaana moom yajuudu dana tabe dana may làkka ñeel la bi nazaratin ci ab xool tanaaru da amee bihaa ca xool boobe maa turiidu la nga bëgg maa la nga xam turiidu da nga ko sopp bi nazaratin ci ab xool yux nii ka boo xam ne dana la doylu loo mawlaaka sa boroom bihaa ci xool booba an kasratil kaddi walis bari ab coona nanga nekk nga nekk muntabihan di aji yeewu fa nadaratul xubbi xoolub sopp mi min acheikhi bu tukkee ci sëriñ ba ilaa muridihi jëm ca taalibeem ba hiya moom almazaya mooy mayya mooy xéewal ya wal olaa ak ak kawe ya mbir wi kawe ya nee na bokk na ci li war a dox sa diggante ak sab sëriñ mooy ni nga ko xormaale moom sëriñ bi nga xormaale noona waa këram bal képp ko aju ci sëriñ bi rek lépp lu taq ci moom da nga koy xormaal nga xam ne kër sëriñ bi doo ko yemalee kër yëpp boo ñëwee summi say dàll doomi sëriñ bi noona soxnay sëriñ ma waxaale wu ma waxaalu ma leen nga wormaal leen lool doo si gis sax xool leen bal taalibe sëriñ bi sax da leen war a wormaal da nga war a wormaal nee na loolu boo ko defee sëriñ bi day mën na laa may yéene ci xolam mën naa jekk ci xool la bët boo xam ne bëtu yéene la te bu ko xoolee rek suñ borom def ko yàlla moom mooy def du sëriñ moo mën a def di ko dindi yàlla mooy aje def ji waaye nag yàlla képp koo jël ab jaamam bu mu fonk nga fonk ko wa man yuxadim xurumaatullaahi képp ku jël lu yàlla fonk nga fonk ko kooku suñ bu waaw suñ borom defal la sëg bëgg na sëriñ mën na la ko bëtu yéene bëtu yéene boobee ci lay suñ borom di faje sa aajo ba doo sonnati mukk lépp loo bëgg da ko am moo tax mu ne yuux nekk moo la defal du sëriñ bi moo la koy defal sëriñ bi dalay lay yéene rek fekk sëriñ bi waayu suñ borom la suñ borom fajal la sa aajo nee na doo sonnati mukk loola na ko xam ndax xoo sëriñ bi xool bëtub sopp ak bëtub yéene mu xool ko taalibe bi nee na loola mooy fajuk aajo loolu mooy fajuk aajo moom la ñëpp di sàkk ko xam lu baax mu ne wakkun na nga nekk la def cheyxi fa sëriñ ba kamaytin ni ki ab néew wudia boobu tëralees na ko bay ne day xaasilihi diggante ñaari loxo loxoy aji sangam tantafia kon danga nga jariñu nee na sa digganteeg sëriñ bi daal na mel ne néew buñ jox ka koy sang ni muy yaroo du ne nii nga may sange du ne ndox mi sedd na du ne ndox mi tàng na yal na yàlla yërëm néew yëpp ndeysaan yu jullit ñi néew boobu ni muy toppee ki koy sang bu ko wëlbatee mu dem nee na melal noonu sa kanam sa sëriñ boo ko defee rek da am njariñ mi ngi jëm nag ci sëriñu jàngale bi wa in takun dem da nga nekk saa taallumin di boromuk sàkku xam di boromuk sàkku lil ilmi ñeel xam-xam fa bu taxi na sakku sàkku xam-xam ba lillaahi ngir yàlla wala ba fa bu taxi na nga sàkku lillaahi ngir yàlla ridal muallimi ngërëmal aji jàngale ja mooy sëriñ ba aji xamle ja wakun na nga nekk la daa sayxika fa sab sëriñ kal mamluuki niki kuñu moom niki ab jaam tabluuxu da nga jote bihi ca loola darajatal muluuki darajay buur ya wa alam na nga xam bi an na nafa ci naka njariñ laa yonaalu fu ko am illaa bi ijlaalin dara ci ak màggal alaamaa ca kaw la nga xam ne xaaloo wax nañ ko ñoom boroom xam-xam yi bi xadri ijlaalika ci kem sak màggal say xaka sab sëriñ te foosu ngay texee bi ma ca la nga xam ne tuuriidu da ko namm mooy te foosu ngay amee rek wa taxuusu te da làqe bi ci moom al yum na barke fa kullu man képp koo xam ne lam yurud di gërëm loowut sayxohoo sëriñam falaa yenaalu du am fi fi tilmiisihi ca dongam ba maa amala la muy mébét bal li am sax mooy rubba saxsin baraana jëmm yu'linu dana feeñal bil ulumi ca xam-xam ya wala yenaalu te du am man koo xam ne yarkanu dana jéng ilayhi jëm si ci moom yàlla nañ ci yàlla musal aatanaa kon nag yàlla nañu musal allahu yàlla wa iyaakum te musal leen yéen mooy ak yéen maan boole seen min kulli ilmin ci bépp xam-xam lam yanfaa boo boobu jëriñut aaliman aji xam mooy ka ko xam nee na bu dee sëriñ bi lay jàngal maa ngi lay digal heure booy sàkku xam-xam bul sàkku xam-xam kese na nga sàkkuwaale ngërëmal sëriñ bi lay jàngal bul jàpp rek bu ko yemaleeg nit ñi rek déedéet man daal naa jàngare dem sama yoon déedéet na nga sàkkuwaale ngërëmam di ko liggéeyal di ko xormaal boo toogee fi moom nanga mel ne ab jaam boo xam ne dafa bëgg a dab dafa bëgg a jox ngërëm daa bëgg a bégloo ab sangam ab sangam maanaam buur yi àdduna yi rek ñi leen di liggéeyal dañuy def lañ man dañuy wattandiku lu leen di merloo moo tax lenn lu ci nekk dañ koy bëgg a def nam ko bëggee moom yow nag boo toogee sa kanamu sa sëriñ boobu na nanga mel noonu jàppal ne mooy buur bi nga jàpp ne yow yaay aji liggéey ji na bàyyi xel ne njariñ rawatina njariñul xam-xam mënoo koo am lu dul da ngaa xormaal karee jàngal noonu la ko borom xam-xam waxe kem noo màggale sëb sëriñ wormaal ko liggéeyal ko lu toll noonu ngay am ci barke lu toll noonu ngay la say mbir di jage ci coobare suñu borom bal nee na sax képp koo xam ne fexewu ba liggéeyal sab sëriñ sëriñ bi lay jàngal fii lay wax ba gërëm loo ko yow sax boo màggee boo amee ay yeneen donga <laughs> sa donga yooyu suñ borom mën na la cee natt ba nga xam ne yow it la nga bëgg doo ko am maanaam li nga leble rek lañ lay fay kama tadiinu tuddaan kon ni nga defal sab sëriñ suñ borom mën na laa may yow it nga am ay donga yoo xam ne mën nañ laa defal lu ko raw lu ko raw fopp ndeysaan sunu sëriñ sëñ Mor Fall yal na ko yàlla dool dolli wér lim daal liggéeyal ay sëriñam lu ne mu daj ko lu ne mu daj ko yàlla fayee na ko ay dongo yoo xam ne du leen wax dara dongo yi ñooy jekki rek dem ñëw dëgg yàlla dañoo bëgg tabax daara ji dañoo bëgg karo dañoo bëgg def nangam moom du leen wax donte nag lam liggéey sax nun dongo yi wax dëgg yàlla dafa guñ ci lu toll ni bën bën pusa nee na léeg nga gis koo xam ne dana bari xam-xam lool te rafetlu ko te du am kenn ku ñëw ne ko jàngal ma wala kenn ku ñëw naa ko masal mi nangam loola lu ci ëpp mën naa nekk ci barke kon mën ngaa am xam-xam mën naa am sax mën naa am sax ki kee ñuy laaj yaa ko raw fopp waaye yow kenn du la laaj waaye lu ñu musal mooy xam bu amut bu amut barke jàng ba sonn te kenn du ñëw sax ne la masala mi nangam nee na loolu lu mat a lu mat a wattandiku la moo tax ca mujj ga nag mu ne yàlla nañu yàlla musal ci bépp xam-xam boo xam ne nit ki am na ko te moom xam-xam bi jëriñu ko dara. bal mënuñ cee jariñ nit ñi sax mënta jariñu ci xam-xam bi ba di ci jariñ nit ñi xam-xam bu mel noonu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla yàlla na yàlla defal dégg ak topp barkeb sëriñ bi sëriñ bi ne yaani dana jublu ne annahu naka moom yaamuruka dana la digal bi an tuhdiya ci ngay addiyal ci ngay addiyal ila cheikhika jëm ci sab sëriñ bi mastataata ci kem sa kàttan ana loo wa in qalla ak doonte lu néew la wa an tataxarra ak ngay nattale mi ngi lay digal ngay nattale maa la nga xam ne ra'aytahu gis nga ko yow gis nga ko moom sëriñ bi yamilu muy jéng ilayhi jëm ca loolee fi kulli amrin ci mépp mbir wa an tajtahida ak ci ngay farlu fii isoolihi ci ak eggaleem nee na bayit yooyu weesu dala ci doon digal ne la yow mi nga xam ne yaay jàng xam-xam wala yow mi nga xam ne yaa am sab sëriñ moo xam sëriñ ba sëriñ bu lay jàngal la wala sëriñ ba sëriñ bu lay tarbiya la nee na boo ko mënee dey mi ngi lay digal léeg-léeg nga di ko jéem a jox dara ci addiya ci sa kem kàttan rek kenn néew la na bari kenn néew la na néew ak doonte lu néew la sax bul ko xeeb bul ko xeeb addiya moom fa yéen a ja toll rek la yàllay fay waaye du fay ca jëmmi jëf ja boo joxee ab million te xëy na ngistal ak bëgg àdduna waral ko doo ci am dara naka noonu ba joxoon benn tàngal wala benn dërëm wala fukki dërëm wala ñaar fukk li muy nuru nuru lu tuuti bu fekkee sa yéene sell na rek mën nga jaa amee lu ne mar ma ne wa in qalla ñu bari dañoo def ne addiya daa war a bari léeg sax nit day bëgg joxe addiya naan dama ko rusa joxe ndax dafa tuuti loolu day xaw mel ne ngi saal sax day mel ne joxeetoo ko ngir yàlla waaye nee na bokk na ci lii duufal addiya mooy ngay nattale di xool ba xam sëriñ bi lu mu gën a bëgg maanaam nga xool sëriñ bi ngay jox addiya lim gën a bëgg nga xëy na lii la gën a bëgg nga di ko jox loolu addiya loolu mu ëpp jariñ nga jekk jekk rek ñëw comme ni gars di siyaara ñëw ba accès daal di làmb génn ak saw 1000 waa wala génn ab téeméer lépp rek joxe noonu dem sa yoon mel ne amu ci benn fula amu ci benn yéene sax loolu baaxut addiya bu la wóore ne yaa ngi siyaara ji nit ku baax moo xam borom xam-xam la moo xam sëriñ la ku mën a doon rek na day nekk loo wàcc nga xam ne man nga cee xalaat sax laataa ngay dem kon nee na ngay nattale li nga gis mu bëgg ko dek sëñ bi de gis naa ne day yittewoo parfum lool wala day yittewoo ay xeeti cuuraay lool ndax da ciy wis téere mi wala boo xeeti mbub mu mel nangam day moom bëgg na ko lool da ciy sol di julli ji ajjuma wala xeetu ataaya yi wala xeetu nangam de moom loolu loolu ku ko jox dana daanaka da koy jëfandikoo lool nga nattale lool ab secret la boo xam ne koy joxe addee war nga koo bàyyi xel bul jekk-jekk ñëw rek joxe noona waaye lii jël del jéem xool loo xam ne boo ko joxee day dana am njariñ ki lu am solo ci wér gu yaram lu mën a doon loolu ab secret la bu ñu bari du def nee na tayit boo ko xasee ba tàmbali nga góor-góor ba àggale ko nga bañ koo tàmbali di ko di ko dagg boo ko defee rek da nga koy àggali ni ki heure booy dem rek boo yëgee ne loola nga ko joxoon kat lu am solo la nekk mu la loola nga ma joxoon de moom lu baax la ci lu baax la ci wér gu yaram wala ataaya jooje de wala kafe googu de moom bokkut ak café yi su ko dee farlu di ko jéem a am di ko jéem wut heure booy dem di ko jox wala boog boo demul sax nga di ko ko yóbbante nitu yàlla moom lépp lu muy jëfandikoo ci mel noona dëgg yàlla dana ca békk xolam dana ca sedd te loolu loolu mooy joxe ngërëm nee na wa an taxtarima ak ngay wormaal jamia mutaalliqaatihi mboolem way aju ca moom min ci ñoñ wa abidin ak ay jaam wa xayrihim ak ñu dul ñoom sax la laallahu ndax lee moom muy amaana moom sëriñ bi an tandura mu xool ilayka jëm ci yow nazarata mahabbatin xoolub sopp yuux nii ka boo xam ne dana la doyluloo bihaa ci xool ba mawlaaka sa boroom mu yàlla ndax fa inna bi qadri ijlaalil aalimi naka kem màggal boroom xam-xam yakunu lay nekk intifaaul mutaallimi jariñoog aj xamlu ja mooy donga ba nee bokk na ci ay teggin sa digganteeg sëriñ bi lay jàngal nga xormaal ko moom ci jëmmam waaye orma ja nga koy wormaal ak jox ko cër ak teg ko fu kawe nga bañ ko yemale ci moom mooy lépp lu taq ci moom rek nga wormaal ko lépp lu taq ci moom rek nga wormaal ko wormaal ay soxnaam di leen wooye tur yu sell wormaal ay doomam wormaal ay yéreem wormaal ab otoom même sa mbokki taalibe yi sax nga wormaal leen nga ormaale nga man ngaa bëgg ñëpp waaye kii kat wax dëgg ñoo ñoo bokk sëriñ bi ñoo bokk nekk kër sëriñ bi nga am beneen bët boo koy xoole boo xam da cay yokk jullit ñëpp moom ñoo war a yem da nga leen war a wormaal war leen a jàppe seen bopp waaye nag ka a jege ala gën a jege gën a gën yay nga fonkaat ko ak ah, kii kat ñoo bokk ñoo bokk kër ga moo tax nga gën cee xel waxuñu nag nga xool nga bokkal tarixal nangam rek wormaal leen ña ca des doo leen wormaal comme li mu xewee ci jamono kon lépp lu taq ci sëriñ bi nga xormaal ko neen loolu de boo ko defee mën naa am sëriñ bi de dana la xool bëtub yéene bëtub kii de ah kii de su ma sañoon mu am ngërëm kii de su ma sañoon mu am lu baax te loola bu amee rek fekkee sëriñ booba nitu yàlla la wala jàngalekat boobee xolam sedd ci kenn ci ay am ndax mi ngi koy defal lii mën na koo yéene ah kii de su ma sañoon wax dëgg yàlla suñu moroom defal ko xam-xam moom mënu ko waaye yàlla nag mooy jekki-jekki doylu loola mooy jekkee jox la lu ne gàññ loo xam ne la waral mooy yéene ja sëriñ ba am ba xool la bët booba rek ba xolam sedd ci yow rek moo ko waral ndax nee na yow mii jàng na la wóor ne kem noo màggalee sab sëriñ bi lay jàngal lu toll noonu ngay am ci njariñul xam-xam ak barke kon nag bañ a yem ci jàng tey góorlu ci ñi ñuy jàngal di leen liggéeyal di seral seeni xol mu doon jamono njëkkee nag daa taxat ñëw di joxe ca kër gi ñuy togg di lu ne nga daa ko def waxat xii la waxees na benn waykat day waxoon na ne ara gis naa xaqa muallimin aqi aji jàngale aw jabal ashiyaa mooy gën gaa wari mbir yi la gën a war ci mbir yi wa aakaluhoo tey gën gaa feddalikoom xaqan aq ala muslimin ci bépp jullit faxat xaqa yay na an yuxdaa ba dee fi addiyaal ilayhi jëm ci moom sëriñ bi karaamatan ngir teraanga rek ngir delloo njukkal alfu dirhami junniy dërëm bi taaliimi xarfin waaxidin ci xamle wenn xaraf wala ba nga ne bi taaliimi xarfin ci xamle aw xaraf waaxidin bu di benn benn way benn waykat nee na ah man de jàpp naa ne ki nga xam ne moo lay dimbali di la jàngal di la xamal sa diine jàpp naa ne moom moo ëpp àq ci yow moo ëpp àq ci yow tey it àqam moo gën a diis ci àq yépp nag àq jullit ñëpp moom moo ci gën a diis ndax bu fekkoon ne lim lay jàngal mooy alxuraan la mooy xam-xam la bu fekkoon ne da ngaa wàññi arafu ci nekk nga fay ko ci junni dërëm nee na loolu day teraanga lañ ko mën a jàpp maanaam delloo njukkal lañ koy woy waaye kenn du ko mën a woy ak fay maanaam moom mënoo koo fay bu fekkoon na nga koo bëgg a teeral mooy delloo njukkal danga war a xool lim la jàngal nga wàññi araf yi araf bu ci nekk nga calcul nga muy ab junni def naa loolu kon dana bari ndax boo nee bu la xamalee bis mi nga jël baag yi def ko noonu jël sii ngi def na nga xam ne kon bis mi rek ñetti junni lay doon lool kon mënoo ko te nee boo ko bëggoon a loolu lay doon loolu du tudd fay mukk teraanga rek lay doon kon jàpp naa ne kon àqam moo gën a diis xataa laqad xiila ba waxees ne innahu naka moom mi nga xam ne mooy jàngalekat bi mu mun ku ñuy jiital la sax ala xaqil waalidi ci xaqi waajur muy bàyyi kama naka la waxe baaduum lenn ci sëriñ si ne mu man de danaa jiital ustaas yi sama ustaas sama jàngalekat ala xaqi waalidi ci aqi sama baay muy ak sama waajur wa in kaana ak doonte nekk na sax lii di ma ñeel albirru yiw wa wa lutfu ak ñeewante ka fil waalidi ci waajur wa fa haasa kii di jàngalekat bi murabbi ruuxi aji yar ruu la wa ruuxu te ruu day jawharun wurus la dafa foor a foor ba mel ni or boo ko doon misaal mu war a or waaye misaal la wa haasa te kee di waajur wi nag murabbil jismi mooy aji yar yaram wi wa te moom yaram wi de sadafun aw xoor la rek aw xoor aw xottu la rek lëxoo ñeel ko nee na benn boroom xam-xam sax wax na lu gën a diis loolu nee na man de jàpp naa ne ki may jàngal sax àqam moo gën a diis sama aqi waaju sama baay bi ma jur waajur wi jàpp naa loola. ak doonte sax xam naa sama baay ni mu ma fonke ak ni mu ma bëggee ak ni mu may ñeewant ñu ne ko lu tax ma ne damaa gis ne ki may jàngal moom day defar sama jikko di defar sama ruux. di ko sellal te loolu kuy texe ci loolu ngay jaare ba texe kon boo muccee mën naa am kala jàngal moo la dimbali ba teg la ci aw yoon nga xam lu baax xam lu bon moo lay xemem loo naafila ba nga mën naafila mu xemem loola jàng alxuraan wax la ngëneel la ci nag ba nga mën koo def kon kooku day defar sama sama baatin bu dee sama waajur nag wax dëgg baax na la waaye sama xottu yaram rek lay defar mooy suma ma tilimee mu fexe ba ma sangu su ma feebaree mu faj ma loolu lay def te wax dëgg boo seedee kon kee day mel ne mu ëpp solo waaye lii muy wax nii nag wax kam gën a jëm dëgg-dëgg nag mooy sëriñ bi nga xam ne mooy yare dëgg-dëgg nag ndax kooku ca dëgg-dëgg mooy defar ruux doonte jàngalekat bi mën na laa jàngal lu baax dëgg la xam-xam moom ku am lu baax rek daanaka ñoom dañ leen ko war a gërëme borom xam yi yu mag ya ndax mënoo bala jëf da ngay xam même wàllu yi gën a jaamu ko yàlla yi gën a màgget dañ dañ leen a xamal lool rek dañ leen a xamal lu baax xamal leen boo toppee yàlla ngërëm li nga ciy am ak nangam loo tax ñu man koo def kon boo seetee ka leen xamal moo leen teg ca yoon wax ka xamal moo leen teg ca yoon wa moo tax nettali nañ ci xadis ne bu ëllëgee yowmal xiyaam suñu boroom bu wooyee jaamu ko te yàlla yi ñu ñëw mu leen yéen den dem leen àjjana yéen kenn du leen régler kenn du leen def dara ñu daal di dem mu woo ña nga xam ne ñooy jihaad ñoo doon jihaad ci yoonu yàlla di xeex di jaay seen bakkan ngir lislaam ne leen mën ngeen a dem ajjana ñooñu dem nee na borom xam-xam ne ko suñ borom xanaa xamoo ne ñii di jihaat ñun ñoo leen jàngal jihaat xamal leen njariñ li ci nekk bañ mën koo def ñee nga xam ne tamit ñooy jaamakatu yàlla yi di naafila di woor ñoom xamuñu ko woon ñun ñoo leen leeral loolu ngëneel li ci nekk jàngal leen bañ amee xam-xam nag xam njariñ li di ko def kon ñun nag noo ñuy def ne suñ boroom ne yéen kat bokku leen ak ñee yéen dama leen a aj garaat boo xam ne ñenn ci sama malaaka yi gën a foor ñoo nekk seeni nawle yéen dama leen soxla ngir ngeen ràmmal ma jaam yi bala ngeen dem ajana da ngeen a dimbali nit ñi ba noppi doog a doo ko dem mu gis nga xam-xam ni mu amee solo fakkun na nga nekk mi ngi dellu ci sëriñu sëriñu tarbiya bi nag lay waxal fii fakkun na nga nekk bay na yedday yi diggante ñaari loxoom moom sëriñ ba kalmayti ni ki ab néewu bay na yedday xaasilihi bu nekk ci diggante ñaari loxoy aji sangam awil ama wala gumba fi tariqi fii tariqin ci aw yoon wasatal baxri ci digg géej ga maxa qaaidihi ànd ak aji wammatam nee na sa sëriñ boobu mu wax bu fekkee am nga sëriñ ma sëriñ buy defaraate bàyyee ko sa bopp ba mel ne néew bi ni mu bàyyee boppam ki koy sang mu di ko walbati nu mu ko neexee wala mu mel ne gumba goo xam ne dafa réer nekk ca digg géej ga moom fa mu réer daa metti sax ndax bu réeroon nii rek daa metti dana soxla ku ko dimbali ni gumba gu nekk ca digg géej ga réer nga xam ne bu nee nii man naa daanu ci loxo mi yàlla dimbali ko mu am ko koo mat ne ko ah, jàppal sama loxo xam nga gumba googu day dana bàyyee waa boppam ndax ku moom gisut te ci géej lañ nekk te bu daanoo moom day day faatu kon foo ko waa ji xëcc ne ko jaaral nii dana fa jéem a jaar kooka na muy bàyyee boppam kooka ngir mu dimbali ko nee na sëb sëriñ it na ko bàyyee sa bopp loola nag comme ni ko borom xam borom xam bii wax mu ne kamaa xii la waxees na wa in saada dimbali na almaqduuru dogal ba aw saaxaka wala màngala almunaa mébét ma ilaa cheyqi xaqin jëmale ci sëriñu sëriñub dëgg baari on buy aje raw fil xaqiiqati ci xaqiiqa te mooy ci yoonu tasawuf mooy ixsaan bu fekkee ne yàlla dimbale ne la yàlla ko dogalam ba dimbale la wommat la ba yóbbu yóbbale ci sëriñ bu mat ab sëriñ sëriñ boo xam ne sëriñ boo raw la ci wàllu tasawuf nga ne du sëriñu caaxaan du ñuy woote sëriñ te duñ ko bu la yàlla dimbalee daal ba boole la ak sëriñ mat sëriñ faxum na nga jóg fii hawaahu ci bànneexam wa tabi nga topp li muraadihi ñeel na ya wa daa ta nga bàyyi kullama lépp loo xam ne kunta nekkoon nga tusaanihu daan ko jëfe min xablu ci njëkk wakun na nga nekk indahu fa moom kalmayti ni ki néew ba inda muxassilin fa aji sang yuqallibuhu ko wëlbati moom muy sang macha nu mu ko soobee waxoote moom néew bi kat mu taawiixun aji topp la ko nee na boroom xam-xam yi nee na boo dajee ak sëriñ bu mel noonu na nga góorgóorlu ci topp ay bëgg-bëggam na nga ci topp ay bëgg-bëggam te lépp loo xam ne lu mu bëgg la wala mu ko na nga taxaw ci jéem ko ko defal ngir yàlla lépp loo daa jëfee laata ngay ñëw ci moom bàyyi na nga summi sëriñ bi waxoon ne da bàyyi aada da ngay bàyyi aada daal di ñëw na nga fas jëfee nag ndigal rek xam ne la nga daa def lépp ak say programme danga koy bàyyi nekk ci nekk ci programme am kama yu rabbihi bi tarkil aada ngeen ko ca uh, tasooru subaan ba lépp loo daa jëfe da koy bàyyi léegi nekk ci lim lay sant rek nee na moom daal boo nekkee ci sëriñ boobu dangay mel ni ab néew boo xam ne dañ koo jébbal ka koy sang ki koy sang moom mooy wëlbati di yëkkati loxo bi di teg ne nanga waaye néew bi da koy topp rek nag wax dëgg doo ko wax naa ko nii nga may sangeek ak lu tax nga may wëlbatee nii moom yoonam da ca nekk day day jébbalu ci moom carrément daal di bàyyindi ko yal noonu yàlla defal dégg ak topp rabbi ahmadu ala عليه خير صلوات السمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنال